li ñu fi li ñu fi dajale woon tey jii moo doon xam nga ne euh, coow li bëri na ñun pays africain yi dañu yàgg am ay problème ay problème de développement la ñu. ñuy wax ay problème mu relance ay nouveau départ ñun loolu dañ cee yàggoon na nekk parce que nouveau départ ak relance de l'économie ñun dañ ko yàgg wax dañu yàgg wax ne Afrique mën na sax bañ ñu leen di defal ay aide soxla wu ñu aide li ñu soxla mooy suñu ressources minières yi ñu am ak suñu Euh, compétence yi ñu am nañ leen utiliser pour jël suñu destin en main parce que Europe ñun ñoo leen di dundal contrairement ak li nit ñi xalaat Europe dundalul Sénégal Sénégal mooy dundal France Côte d'Ivoire mooy dundal France parce que suñu ressources minières la ñuy jël di leen ko jox ñu koy transformer seen i industrie di dox ñoom fii bu ñu dikkee seen ay banque moo fi nekk seen ay société ñoo fi ñëw di fa am ay marché donc ñun ñoo nar a dimbaliwaat France pour que mu génn ci Covid bii mu dugg économie am dafa rëppeelu mais ñun suñu bos rëppeelu na ba pare ñu bugg ko defar bëgg a yëkkati économie France loolu la ñu wax ne dafa doy il faut faudrait que ñun ñu compter suñu bopp gérer suñuy ressources minières jël suñuy xale liggéey loo leen jàngal leen def face ci défi yi nga xam ne moo ñuy interpellé wax nañ fa si affaire racisme parce que tey jii bu ñu gisee nit ku ñuul niñ koy bund xataalee dans tous les secteurs racisme dafa am bi ñuy def nii réunion bi mi ngi fekk États-Unis ñu ngi rey ay nit encore loolu dañ dikkoon pour xeex ko pour xool ñëpp ñi nga xam ne bi ñu ngi xeex ci affaire racisme ñuy seet naka la ñuy def pour defal leen un grand prix et que Dakar tey dañ ne moom moo war a nekk le point de départ ci mouvement bii nga xam ne bi jël nañ ko pour yee ci la jeunesse africaine pour que ñu def face ci défi yi nga xam ne mu ñu interpellé ki fi indi nag ku jar a àndal parce que dafa xeex di xeex ba léegi mënoon na dem jël retraitam mais mi ngi kon ne di xeex moo tax ñu bëggoon tey jii daal liñ fiy jëlee ngeen partagé ko ak jeunes yi ak mouvement yi fi nekk yëpp nga xam ne bëggoon na noon xeex ñu bàyyi suñu suspicion yi parce que nit ñi bu ñu tasantewul waxtaan duñ xamante et que li ñu war a rassembler mooy xeex pour intérêt Sénégal xeex pour intérêt Afrique defe naa ñun force yi nga xam ne bi yëpp ñu ngi yëngatu yooy war nañoo mën a ànd àndandoo te ñu bàyyi ay subjectivité parce que nit ki il faut nga fréquenter ko pour xam ko mais moo mënoo di seen nit rek di ko jox ay qualificatif di ko dëkkaloo ci ay néeg te xamoo li muy def ñun li ñu intéressé mooy intérêt Sénégal intérêt Afrique te daañ ko jéem a dox ci ni mu waree bu soobu yàlla ak yonent wax nañ la wax nañ bu ñun duñ ci nekkaat di ci revenir liñ la wax ne la léegi les présidents africains et puis les africains avec l' ci mandat yi ba pare war ñoo xam ne peuple bi moo leen yónni et que contrat yi contrat durée déterminée nanu nan bàyyi peuple bi di choisir loolu wax na lépp duñ fi nekk nag di caricaturer ay nit yoo xam ni par exemple xamaguñu seen ay position li ñu mën a wax daal mooy troisième mandat ay affaire fichier électoral ak ay élection contestées yooyu africains yi war nañu am dignité ngor pour jóge ci mais loolu yëpp nag peuple yi ñoo ko mën a imposer gis nga peuple bu taxaw lu mu bëgg loolu dana am waaw loolu mooy essentiel.